président ne lekk rek du dara waa Touba rek bu leen complexe petit déjeuner au lit yéen ñi ko fay sëy petit du dara waa Dakar bu ñëwee yow yow ku góor ki nag bu la sa jabar sëyalee fukki at ak benn bés nga nar koo nga nga nar a yàq àddinaam xay Dakar bu ñëwee sarme la bënn séeri lamine sarme la safa na nga def cheikh nga changé nga ni xool kii séeri lay wax kii lii lay wax sëñ bi lay wax sëñ beeg séeri bu gën a neex sëñ bi gën a neex xale bu naa la ma maytu ko du def lu baax day volé day day day day tox day trappe lépp lay def moytuwul ma xale bi wax bu leen ko takk bu leen fa jaar maa puce gën a dangereux ci jigéen maa puce ku naan soxna si ku naan sëñ bi gën a leer ci àddina bu leen seen i njabar yi bu leen complexe ak xale yi waa Dakar maa puis du dara maa puis je ne rien à foutre du dara ngir jëm rasulilah sàmm leen seen i jabar nga xam ne sëy leen tax a jóg sëy rek leen ñor màggal bu jotee si la ñuy jaamu suñu borom màggal bu jotee si la ñuy def lii parce que màggal si kaw xadim la ñii ñëwuñu pour màggal dañoo ñëw pour nangu jëkkëru jàmbur yow ku góor ki nag boo manqué bés benn bés ba nga ñëw nga mu koo yàq ci ay maa puis téye leen seen i jabar yi nga xam ne seen i jabar ñi dëkk Tuubaa ñu ñooy sëykat ñi dëkk Dakar ko ci seen appartement la lay jël chez yow wee dàq la ngay jël waa Touba sa sa jabar sax li mu doon def doo ko gisee parce que xale Dakar bu la jaay ba jàpp sa nopp bi ba ci lu la defoon ci da koy fàtte parce que ay saay saay lañ ay woyu lañ li ñu xam xayda Touba ñu xay Touba jàngal lañ xam xasida liggéey nekk ak seen i leen ci àddina loolu lañ xam ñii ay simide niw lañ xam def seen i talon seen i string di kafe yi lay xam te ñii ay séykal lañ xam ñu lu bon màggal la leen tax a jóg rek la leen ci màggal màggal la leen tax a jóg dem leen màggal ci jàmm ñibbi si si jàmm ngeen bàyyi jëkkuru jàmm yi ngeen nangu ci ay yu ñàkk fayda évidence yi yéen nag lii bu leen ngeen di mbër lii bu leen jigee lii bu leen jigee ngeen di mbër bu leen yàq màggalu jàmbur gi bu leen dem nit jënd benn nag ngeen si def juróom benn nag wala fukki nag ak juróom-ñaar yow mi yow mi ngeen si boo manqué dangay sol sa sa sa yére bu nga def sa loxo def ni ko wax nga ni sa te doo dara ñu sant Mbàkke waxuñu kenn si def bu seen nag ñu sant Fall kenn si nawul seen i nag am na kilifa xam ne ñu def si ay milliards ci mbaa kenn si nawu leen nit da ngay xam ne màggal du caaxaan.